ñu war a daje fee ca CESAC eh, ngir waxtaanee résultats yi nga xam ni kat moom la ñu am bi ñu defee njàngat ba ba pare pour xool kat xale yi dëgg dëgg dëgg nan la leen jàppale ma njàngale mi eh, gën a mucc ayib. Eh, ministère nag taxawaay bi ñu ci waroon taxawaay yëpp ci processus bi pour jàppale leen def nañ ko ba tey ji incha allah suñu demee le 5 ak le 6 tamit ñu ñëw déglu leen ñu waxtaan ñuy fàttali tamit ne ñuy def liggéey bi. fu nekk la ñu mais bi ñuy def liggéey bi tamit fii ci Sénégal euh, dañ leen jàppale itte leen ay jury ñoo xam ne ay sénégalais la ñu fi nekk ñoo leen jàppale euh, àndal ñoom ci liggéey boobu ba tey ji ñu war a def restitution boo xam ne nii incha allah moom li ma ko wax sànq le 5 ak le 6 lañ koy defee lañ koy def liñ ciy xaar tamit mooy mm, suñu paree njàngat bi ñu mën a am ay tënk yu yuñ ci def tënk yoo xam ne kat day jariñ Euh, Sénégal wante jariñ yeneen dëkk yi nga xam ne tamit ñoom ñëpp ñoo bokk ci ñoo bokk ci Conformen loolu daal mooy euh, dëgg dëgg dëgg dëgg euh, liggéey bi nga xam ne ni moom la ñuy xaar mu war ko def incha allah comme li ma ko waxee sànq le ak le 6. experts yi ñëwee fii ci Sénégal lañ ko defee ñu dem ci école yi waxtaan ak jàngalekat yi waxtaan ak élèves yi waxtaan ak parents d'élèves yi. ànd ak ñoom parce que man bokkoon naa ci équipe bi daan ànd ak ñoom te ñu ñëwee tamit ñun dañuy toxaw fële bàyyi leen ñoom ñu dem def seen liggéey nam leen waree suñu defee ba pare ñu ñëw àndaat ak ñoom ñibbisi ñoom ñoo dem def seen njàngat ñun xamuñu lan moo nekk ci njàngat bi suñ defee jàngat ba pare tamit ñoom ñooy ñëwaat waxtaan ak nit ñi wax neen kat ñun kat njàngat bi lii lañ ci gis ñun ñëpp ñu toog am na ñoo xam dañ leen tànn ay ab jury boo xam ne waa Confamède ñoo leen tànn ñoom kat ñoom ñooy def ay ay tënk ne lii kat suñu bëggoon kat njàngale mi suñu bëggee njàngale mathématique jëm kanam jàpp nañ lii ak lii ak lii ak lii ak lii mën nañ ko def ministère tamit tooguñu rek di xaar bés boobu ndax ci processus bi ñu tàmbalee tamit dañoo jël benn kuréel boo xam dañu ko teg tamit pour waajale ko bés bi mi un comité restreint boo xam ni kat programme yu bari am nañ ci ay représentants muy programme enseignement élémentaire muy programme éducation préscolaire ñi nga xam ñooy tout tànk yi ak ñi digg dóomu muy élémentaire euh, IGF ñi nga xam ne la doyenne euh, moo ko jiite ñu am ci représentant euh, INEAD ñi nga xam ni moom moo yor lépp loo xam ni kat day nekk ci fànn nattu xale yi natt xale yi muy les les les évaluations am nañ ci représentant de près ñun tamit am nañ ci représentant donc ñoom ñëpp ñoo ngi ci ci kuréel boobu kat pour jéem a xool kat recommandation yi nan la ñu koy joxee te am naa yaakaar ni namit recommandation yi du ñàkk ne am na ci yoo xam ne nii ministère bi commencé na ci def ay jéego parce que ministère bi tamit toogul rek di xaar parce que tëral nañ ay programme yu bari yoo xam ne fi mu toll nii ñoo ngi jàppale xale ci l'apprentissage des mathématiques lu mel ni PAM moo ngi di jàppale xale yi de nekk ci waa DE peut-être que ñoom suñ fi nekkoon ci la ñu lay gën a mën expliquer mais programme yooyu ñoo ngi fi am na yenn programme yoo xam ne aussi nekk na fi ci académie jàppale académie yi avec euh, le PADES am na fi mu toll nii ce que nous les PAR tey jii euh, nekk ci académie pour dëgg dëgg dëgg jàppale euh, évaluation jàppale lépp loo xam ne njàng xale yi lay nekk pour pour pour pour mu am njàng mu mucc ayib. donc lépp lépp ñoo ngi donc moo tax ma jàpp ne euh, tënk yi suñu tënk tamit mën naa am suñu ñëwee dana fekk loo xam ne kat ministère bi tàmbale na ko mais du ñàkk loo xam ne tamit lu bees la loo xam ne tamit jàpp nañ ni kat dinañ ko jox autorités yi pour ñu xool ñoom nan lañ koy nan lañ koy nan koy mettre en œuvre